ay waay tele télé daal yàlla na fi yàgg suuf gi. <laughs> nii nga nekkee nii. dafa garaaw ngaa la. da ngay gis ku sañsee mais kaw gi dafay rafet mais gis boo xooloon suuf gi <laughs> tey nga dee moo tax gis nit ci télé rek bëgg ko wala nga gis nit ci photo rek bëgg ko baleen yooyu de attention de mhm. attention wal Walf Quotidien lañ koy tàmbalee <laughs> ma leen toppee tey duñ fi jógee <laughs> fu nee na Sénégal sans gouvernail mm-hmm. yoo xanaa mooy kër gu amut kilifa périple de Macky absence d'un PM fin de mandat de l'Assemblée le Sénégal sans gouvernail Niass écarté en cas de vacances moom nag mi ngi taxaw ci buntu roppalaan gi roppalaan ay bàjjo bi gis nga boo mos a yéeg avion première fois bi nga yéeg avion décollage bi am na benn kilifa <laughs> soose am na benn kilifa ndeysaan kii moo tax kenn ay bu ñëpp bu ñu moom wax lépp kenn mënu wax lépp Ziguinchor lañ doon dem li ma lay wax nii maa ngi nuyu sama yaay bi umu si jamonoy Simot ñuy dem si li may wax nii. loolu yàgg na 99 2000. jamonoy métti sakana. ay waa loolu amatul danoo yëg toog takk kii na siège machin ndeke kilifa ba moom c'était sa première. tey mu dee. tey lay dee. mais loolu <laughs> kilifa boobu heure bu ma ko gisee ci écran télé. nii laay def xoolal damay jël def nii damay sama waay la ndeysaan damay def nii rek xaw a kii rek daal di daal di zappe parce que <laughs> keroog damaa rus ba pare di ka ree. lan la def. xuli. ba pare boo paree nga wax ma tur bi. xamul ko def. bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad. décollage avion rek boo ñu mës a dund. allahumma salli ala bu nee bërëb. xulil sa waay. Hmm? waa ji la tari naan di tari ay saar. ba pare naan ma xam nga c'est la première fois là. mais c'est la première fois. ma <laughs> ne yàlla na ngeen ci dugg yéen ñi ci mës a dugg yàlla na ngeen ci dugg. li leen di wax nii. ma wax amin. li ngeen di wax nii euh, fekk duggoo ci doo ko xam. mais nag mais nag c'est aussi loo xam. ah non c'est normal aussi. Eh aywa ça me sama. avion ku nekk ak ni koy ngeen jàpp ne semaine bii di ñëw damay dem vacances. waaw yow da ngay dem waaw mami moom ma nga Abidjan mami Samb. ñibbisil ñëpp ñëpp ñëpp may laaj yow da ngay dem. yow da ngay dem yow da ngay dem yow da ngay dem internautes yi laaj Mamy Samb on vous dit que Mamy est toujours avec nous. dafa dem ci benn liggéey léegi nag liggéey bi dañ leen wax lan la. waaw The Voice. waaw The Voice. Mamy comme macha allah voilà am na voilà. dafa mm. am koo xam ni. elle est sous sa tutelle. Mm-hmm. wala il est sous sa tutelle l'un dans l'autre. kooku la àndal pour assister que ça lui prend peut un petit temps mais mu ngay ñëw. waaw waxee leen ko noonu nag ba pare nag xam nga dafa bëgg ay. dina dugg ci zoom bi wax ak mbooloo. incha allah. ngaala maa dugg ci roppalaan gi ne cëpp Conakry def fa fukki fan yu saf-saf laa <laughs> ilaaha illallaah <laughs> neuvième jour bi ma ne gars yi damaa bëgg a gis seen palais bi gars yi di ma ree am naa dañ naan mais regardez-moi ce con là <laughs> ici c'est pas le Sénégal ma jóge fa war a dem Côte d'Ivoire def escale Libéria mm-hmm. ci roppalaan gi ca laa deme woon ca ca wanag dëkk weer et que Josué. eh ci biir roppalaan gi ca laa demee ca wanago. waa soosi. ay waay. non loolu anecdote la. Euh, internet yi ñu ngi xuloog man ci numéro wave. anecdote la suba suba incha allah dinañ dugal numéro wave bu normal euh, incha allah d' accord. bu subaa daañu ko daañu ko dugal. Serigne Serigne Ndiaye mooy xeexkat yooyu. incha allah sama xarit photographe la bu nekk Bordeaux. nee na ma guerre day sof mondial dugal leen numéro bi. léegi nii Mbaye ah, Anta Mbaye Anta loolu nga wax duma ko def. Mbaye Anta la Mbaye c'est que Mbaye Anta moo ci émission bi Mbaye Anta. <laughs> Mbaye jàmbur nee naa la kenn du ko laal moom sama Mbaye Anta la <laughs> Mbaye jàmbur sama. Eh, xarit eh, eh, sama topp couloir <laughs> defaru ba jekk. mu jëndee ko ndékki toog waaye sa caaxaan yi defar. defaru ba jekk ñëwaat toog jàpp sama jàpp dañ ko aaye. li may dégg ci sama nopp bi kenn aayewu ko. te ma ko dindi. diggante Libéria Abidjan laa la wax de distance boobu laa fa laa defaru ci yoon wi dem Abidjan def fa fukki fan yu sax sax dem seeti Alpha Blondy Peace Unity Center Alpha Blondy génnee la de ngandam centre commercial la tabax Abidjan. ngandi doku centre commercial. Peace and Unity Center la ko tudde ubbi rajo ci biir tudde ko Alpha Blondy FM gër yàlla de alerte yéen eh, eh. a bi nee na le mot d'ordre de Wade au leader de Yewwi et Wallu ne pas se laisser divertir par ceux qui cherchent désunir Wade loolu la wax de Wade nee bàyyi leen di may nopp ñi nga xam ne seen yéene mooy divertir ñu pour tas ñu. Mhm. loolu la Wàdd wax waaye yeewee waa wàllu ñoo moom message boobu hmm? mbiri l'hôpital la Dantec ba léegi coow li pënd boobu réegul de. maître ma soxna kan consommateur yi dugg nañ ci de am na ko ko doon wax démb fii de est-ce que du paasam. Mhm. waaw waaw waaw yi dugg nañ ci de. maître ma soxna kan mi ngi ci yéene kaay alerte quotidien xoolal lii rek un an après sa radiation et sa saisine de la justice restait sans suite le capitaine Omar Touré affûte ses armes xam nga lii c'est très dangereux lii dafa dafa doy waar cim réew yow ñu raja yoon may la nga dugal recours a ngi nii kenn newu ko wow na wala tooy na mi ngi ci yéene kaay bi alerte quotidien mhm. bés bi yéene kaay ñëwaat na ci mbiri chef de l'opposition bi de nee na Abdoulaye Wade réchauffe le plat <laughs> su li waat na yëf ya de chef de l'opposition bi nee na le PS le PDS est la première force politique de l'opposition parlementaire moom Wade parce qu'il a plus de ah. voilà et et et, et et et le débat ne se pose pas il maanaam maanaam ci parti politique yi nekk ci assemblée. Hmm. xam nañ ko Abdoulaye Wade ah. moo ëppale ci parti yi nekk ci opposition bi. voilà c'est logique du débat. voilà maintenant le mal dans tout ça tu sais xam lu mu tudd lii nu mu tudd. Mhm. parce que malheureusement une voilà les gens ont plus se sont plus concentrés ci loolu. plutôt que sur le fait que parce que c'est cette presse là nos mhm. amis là. Mhm. ñoo doon bind ne Yewwi Wallu mu ngi waaj a tas. en tout la l'information c'était de dire li ñu foogoon wala li ñu doon jot. Ablaye Wade wax na contre sens ba dindi na ko loolu doon info bi. mais ils li nga xam ni fi mu nekk nii. ñi nekk yeewu wàllu bu nu bàyyiwul xel dañuy juyoo seen biir daan ne way lu tax mu naan mooy chef de l'opposition waa Pastef taxaw na leen ne gis ngeen paa bi fi mu jëm. c'est ça lii alal ruube alal jekk pourtant pourtant nag pourtant nag xolal wax na ci lu am solo loo xam ne dañu bàyyi xel nee na nous ne devons pas nous laisser divertir par ceux qui veulent casser l'intercoalition. Abdoulaye Wade loolu la wax. loolu kay leer na bu fi kenn bindati naan. waaw Abdoulaye Wade yëgul intercoalition nangam ak ki nangam Bamba Kassé yow laay waxal taskatu xibaar yi ci réew mi. Hmm. gis nga gis nga gis nga gis nga Mali gii man bu ma leen mënoon a sotle ci lii leen France di def billaahi dinaa ko def. Hmm. gis nga ko mu ngi ci yéene kaay Mali financement des terroristes Bamako accuse Paris récuse <laughs> baax na. loolu loolu yàgg nañ ko. waaw waaw baax na nañ dem rek nañ dem rek Pape Djibril Fall moo na ci xët mu njëkku yéene kaay bi Dakar Times. ah ñu ñëwaat. lee ci kaw lan la. lee. oui. polémique sur la réhabilitation de la Dantec. 29 bébés abandonnés parmi les 55 corps à la morgue. asalaamaaleykum. loolu looloo doon une journal bi. waaw ñii ñoom ana seen ana seen ndey ak seen baay. bés bés bés bi le jour journal bi j'adore ce journal là il est tellement beau ça va looloo doon une journal bi nag. 29 bébés abandonnés parmi les 55 corps à la morgue. lii moo une. laa xawla laa xawti laa billahi al azim auzu billahi min shaytaan rajim sey yàlla suñu borom kii jël décision bi ne day toxal addisid la daan teg ne da koy tabaxaat nangam dafa am yoon eh, da ngay rénové dafa am yoon eh, hmm? xam nga démb la laa gën a retenir ci discours Pape Djibril Fall bi muy wax naan euh, kii ferme un hôpital ouvre ouvre un cimetière euh, wax bu rëy la wax bu am solo eh, wax bu kawe la wax bu kawe la boo tëjee hôpital faat nga ay nit. gis nga nabu gis nga gos bi sa gos la. oui attention de na ko Sénégalais yi bàyyi xel. gone gu mag yar la kii. kii gis nga caajaa ji muy tudd rëy tudd ko nii rek nee gratuitement de. gone la gu magge ci ay keppaaru mag waxi mag dëgg lay wax. <coughs> nee na kii ferme un hôpital ouvre des cimetières wax ni dëgg. Mm-hmm. démb nag àdduna jëme ci taxawaay bu ma a am ci penc mi. Mm-hmm. nee na daal moom fi mu toll nii ginnaawam ba nag <laughs> un jeune Thiessois interpelle Pape Djibril Fall député leader de Yewwi Pape vous êtes notre dernière chance xam nga ne kon am na ñu ko yaakaar am na ñu ko yaakaar direct news maître Abdoulaye Wade remobilise ses troupes ci njaayum carte yeeg hmm, renouvellement yeeg. ñoom UGTEL ak eh, ñoom mel ak wàdd daal bàyyiwul dara bépp kuréel gu bokk PDS wàdd wax na ak yow. nee na na ñëpp takku ci yéen kaay bi direct news dañ jaayaat carte mi renouveler instance yi na mbir mi gaaw ah cay góor gi national enquête yéen oui mbiri coowal euh, installation législature bi yéen kaay bi ne les grandes manœuvres hmm? Macky Sall rencontre les députés de Benno samedi. Hmm. ca palais ba nag. Hmm. pourtant lii de yàgg na ko ŋàññ de maanaam suñu palais de la république. yàllaay yàllaay. c'est pas le palais de l'APR attention. le palais de l'APR c'est le siège de l'APR. l'APR voilà. mais le palais de la république c'est pour même les non-apéristes. ñoo ko bokk ndaje mii lu tax yóbbuwuñ ko seen siège ñoom ñoom da man li ma jaaxal ci ñii dañuy kaas benn affaire bu ñu faloo di ko def. mais Socé yaa ngi naan palais de la République pour les non-apéristes donc pour le peuple. pour le peuple mais est-ce que tu sais que le peuple n'a pas accès sax à la rue maanaam avenue Roume Abdoulaye Wade ba mu fay nekk. da nga daan romb bu la neexee nga taxaw gàddu. non oh, dëgg la eh, eh dama lay fotow kaay ma wax la benn anecdote léegi mënatuloo ko amatul accès. xoolal bi ma demee bi ma demee Conakry laaj gars yi seen palais bi laa bëgg a gis gars yi di ma rey. ne sa waaye ñun suñu palais bi fii doo ko jege de man lu tax gars yi expliqué ma nag ci laa comprendre yóbbu ma ba Toumba Diakité fi mu fete la woon Moussa Dadis Camara. Mm-hmm. waa ji ne ma fii la ko dóoree woon bal bi fii ñu taxaw nii. Mm-hmm. ma ne leen ñun senegal nit ñi dañuy taxaw buntu palais bi fotow ak garde yi gaa yi weddi ma loolu la ñu xam ma dem Google ci saasi wan leen ay photo ñu ne ñun lii kenn xam kenn xalaatul def ko fii loolu mooy yoon oui problème. palais bi suñu kër la palais suñu kër la. nit bi dañ ko war a dindi. palais dañu waroon organiser sax ay journée port ouvertes. Mm-hmm. ñi bëgg a visiter palais bi dugg visiter xool ñu ne voilà fii mooy bureau Macky Sall fii mooy lii fii mooy lii fii suñu kër la. eh waay. dafa war a am. kon nga gis ku dugg laaj quatre cent mille am. ñu jox ko ko mu génn <laughs> jël taxi ñibbi <laughs> <laughs> maison blanche dañ koy def def ay visite yu de xale yi surtout les écoles di leen invité palais ñuy visiter di xool palais daal sëñ bi wala nag di di di yee seen sens civique civisme voilà dafa am solo leadership leadership jàngal leen taarixu réew mi mais tëju bunkériser wu ah. bloqué wu xoolil teg ci immeuble yi woon foofu yëpp ngeen jënd ko ne sécurité dajale ngeen fu ngeen jëm ab ab yaa fayaatu en tout cas pale moom du kër kenn suñu kër a ñun ñëpp Macky mii ndaje mii fa la koy defee samedi xam naa ne samedi moom sëñ bi buntu pale dama waroon dem seetaan yi sox duppute yi jaabaa jonge pale am na ñoo xam ne pour ñoom bu ñu duggee pale sëñ bi egg nañ <laughs> am na ñoo xam ne mu ñu nee njilu pale salaamaaleykum pour ñoom egg nañ te xamuñ ne pale ak seen néeg yi kër yi ñoo yem lieu la rek mbiri présidence assemblée nationale yéen kaay bi enquête ne yi bokk na ci li muy waxtaanee ak bi waaw ko nag <laughs> na leer de présidence assemblée nationale bi. Mhm. bu dof dof bu dof dof loo dina ci am mbégteel gu rëy parce que fii le vote est secret <laughs> vote est secret de kenn xamul ku kenn woteel. gis nga ko nii intercoalition Yewwi Wallu maître Wade prône l'union sacrée ah gis nga ko li ma la doon wax 24 heures yéen a exploitation des hydrocarbures et menace à Saint-Louis le silence coupable du gouvernement nappkat yi dañoo am jafe-jafe yu rëy hmm? les pêcheurs saint-louisiens faute de poissons sont obligés d'opérer aux limites de la bind bi daa xaw a fulu de la zone maritime de Distara côté côté bu fële ci kaw mu ne fii mais aujourd'hui la zone est désormais interdite parce qu'un groupe d'entreprises dont le leader est British Petroleum mooy BP BP gi termine la construction d'un terminal offshore sur l'un des plus grands champs gaziers d'Afrique foofu yépp dañ leen ne bu leen fa jegeet donc jafe-jafe yi nappkat yi ndax Sénégalais yi ñu expulsé Algérie la la. dafa anamu mais ñii ñu ngi bëgg a dee merci Algérie cent quinze Sénégalais lañu expulsé génn leen. mais mais dafa am na si ñoo xam dañoo càng ca désert. ñu ngi ci désert désert bi fa lañ ne. te yàgg nañ li yàgg li ça fait des mois. yàgg na koy wax waaw mais Aïssata Tall Sall moom. yaay booy. Eh, eh, eh, borom musóor bu rafet dafa bëri africain mais yeneen africain yi seen i dëkk dañuy jékki-jékki jël si leen. ñaar am na Aïssata Tall Sall na cee wax. Mhm. Moïse Sarr. war Sénégal les Sénégalais de euh, rajo yi dañ ko woo jotuñu ko. sëñ bi Moïse. ay sëñ bi Sarr ma ne rajo yi dañ ko woo démb jotuñu ko. yaay booy borom musóor gu jekk gi Aïssata Tall Sall. suñu doom yi ñu ngi dee ci désert u Niger ba Algérie dal na génne ca yàlla dañ leen dimbali ñu ñibbisi ci réew mi waaye dañ leen dimbali si ñu ñibbisi Pape Djibril Fall reste dans l'opposition wax na ko démb et promet le contrôle du gouvernement waaw loolu am na solo critique yéen a kaay xemes mi yërëm naa ko de danaa ñëw ci mbiram léegi journal bi ne premier ministre présidence assemblée nationale <laughs> deux gros bébés par césarienne mar d'Italie lii ay yàlla xoolal yéen kaay bi de nee na Pape Djibril Fall vend son mandat clair obscur hmm. <laughs> ak ngóor si ji ngóor si Fall li mu wax lépp. Hmm. waaw <laughs> mais du doute quoi genre genre que leerul quoi. Ah, pourtant moom nee na dans l' ci li ma dégg ci li mu wax mais mais mais Socé hmm. Pape bu nekkul ci opposition bi au vu de tout ce qu'il a dit ne ak sa posture de dénonciation à l'écran fu muy c'est-à-dire même ci wàllu xalaat génie ambition sànq bi noo wax dañ ne mhm. yàlla nag yàlla kàttanal te mu moytu kaymaa yi parce que s'il fait le sens contraire fan la jëm non Pape Djibril doful fan la jëm Pape Djibril c'est-à-dire que te wax bi du yem rek ci wax ci dëggal ak jëfeek la ca des te foofu la ko sénégalais yi di xaar et je pense pas que Pape quand même soit soit ci koo xam ne ay mag la yar soit impertinent à ce niveau ay mag attention de goos bi goos bi faal <laughs> na baax na baal ba législature bi commencé baax na Guy Marius lan la wax fële si clair obscur Guy Marius Sagna marche la woote di samedi incha allah samedi waaw affaire Dantec ay waay sénégalais yi génn leen ñu dem marché gan Dantec hôpital Dantec samedi. na ñëpp ñëw ah, samedi. incha allah moo tax moo tax yéenekaay bi di laaj na moom mbaa dina ko jig <laughs> xemes sortira tel indemne de <laughs> ci processus bi. yaram muy metti ay waay sama sama sama bi waay. soose samedi on va à la ah incha allah les gars. samedi la samedi waaw. fële euh, Dantec. ñëpp euh, obélisque defe naa ba RTS ah. ñëpp ñëpp na ñëpp ñëw. am na solo. na ñëpp ñëw. ay waay ay waay njooroo ngi yaay booy Ndiaye laas yéene kaay présidence de l'Assemblée nationale professeur Ndioro Ndiaye prête pour plaide pour Mimi waaw moom nee na jot na nag Sénégal fi mu toll nii nag ñu ñu ñu ñu ñu expérimenté tuuti maanaam kuréel yu mag yi fay dégg ay jigéen moo tax moom mu yaakaar ne Mimi Touré mi war naa mën a jiite assemblée nationale. kii nag cay jamonoom ah kii ku sénégalais yu bëggoon la nag professeur Ndioro Ndiaye boobu ñun ay tuut tànk lañ ndeysaan chet tet tet man pour man nekkatut ci réew mi sax Ndioro maître Abdoulaye Bathily non maître Abdoulaye Wade secrétaire général national PDS nee na notre parti waaw mais père nag wuy ma père la première force de l'opposition père nag dimbali nu quoi père paa bi rek. mu ne. notre parti est la première force de l'opposition père nag oui. mais Socé. il m'a précisé benn affaire. kenn weddiwul lii. non non de l'opposition à l'Assemblée nationale. waaw jaay kenn weddiwul jaay dama la ne on le di en passant à nos confrères. on est obligé de le dire parce que yàlla une type quoi. Mm-hmm. l'information principale du woon lii wax naa la ko sànq. ci biir texte bi booy lire Ablaye Wade loolu def ko effleurer. même bu dee mën nañ ci bàyyi xel. après ñenn ñi dañ la naan non Wade il est moo ko def nangam nangam et cetera mais contexte bi débat bi du loolu. ah Ousmane ko dana wax à 11h incha allah donc bu leen jaxasee intercoalition bi bàyyi leen leen xeex dafa mat ñoom danoo xeex assemblée la ñu gëm ak seen xeex. Mm-hmm. ka bokk nu ngay xeex. ka bokkul nu ngay xeex mm-hmm. ruube beeg la sa des nag il faut arrêter Sénégal dafa toll ci guuta journaliste douanier inspecteur politique keneen ak keneen ñépp a war a bokk nu ànd ndax nasaraan mu ngi fële di bëgg a jël suñu dëkk ànd ak ay workat ñu leen koy bëgg a jox le combat il est là pas de façade soi-disant parce que pour des accointances ak des privilèges nanu xeex xeex bi ñu defal suñu réew hmm. mhm. loolu la Seck wax Seck si nginaar loolu la wax mhm. l'info moom da ñëw na ci professeur université yi yi ñàkk a déggoo di xuloo seen biir ci affaire Dantec bi waaw ku bu bu kii bindee kee tontu. mu ci yéene kaay bi l'info. l'observateur. Sénélec facture MPE yi ah une dette de plus de cent milliards ki annonce le piir am na yéene kaay bu ne deux cent milliards la. Mhm. Mhm. dégg nga xoolal waaw man ñii lu tax duñ fay. ñan lañu lim. ñan ak ñan ñooy ñan ba duñ fay Senelec mhm. TER bi fi Mansour Faye ne woon mi ngi génn xaalis bi du jeex. 30 milliards par par duñ ko fay. TER Sen'Eau. Sen'Eau. ak ñeneen ak ñeneen. ñooñu ñëpp ñan lañu. nguur état. des mauvais bëgg a dee ngeen téye xaalisu jox. ba moom mu mujj am ay bor. état wu senegal laajal waa RTS. ñu ngay koy mais mais laajal waa RTS laajal waa RTS publicité ba li leen état bi amel mais ñoom li ñu wax ñi ñu wax ñi ñëpp est-ce que ñàkk nañ lu ñu fay ba fay ñu ba dette bi mën a yegg ci sama. dañoo war a fay plus. dañoo war a fay loolooy dëgg Senelec boo fayul courant da lay coupé du la yërëm ñun baadoolo yi ku ci fayul ñu coupé la waaye. ñoom ñu coupé ñi. xoolal des mises en demeure et préavis de coupure envoyé aux structures concernées amut mise en demeure dem leen couper na terre bi taxaw. dañoo war a fay. terre bi dawewul courant sax man xaw ma seen. structure ba xanaa jësal da lay dawee teer moom. non xam naa peut-être su yi la quoi locaux yi. waa ci jamono ah. jii ñu toll. administration beeg yooyu la certainement. waaw xam naa waaye teel moom gisal lay def moom ci ah. <laughs> jamono jii ñu toll ca 0,90 bu la ñu ne leen 1 mètre mooy raay normal 1 mètre 50. ah ñuy def 0,90 di man man dama xamul nguur bi lu leen dal. en tout cas Sénégal gii bu buñ ko dimbalewut ba courant bi tàmbalee waat xuy kamac Sénégalais yi dañ ko lijjantil seen bopp. c'est grave. l'observateur ne forme fermeture de l'hôpital la Dantec l'autre drame def na ko bu yaatu ci mbir mi mi ngi ci yéene kaay l' évidence ñaar la boole Macky ak xaritam buggoon ngay dani borom tibb tànk ak topp tànk <laughs> ay buggaan maa ko fande buggaan nee na opposition option bi maanaam soutien bi mu leen indil ci ci ci ci ci élection législative yi nee na pour le peuple sénégalais nee na peuple bi doo nga tax mu doon xeex loolu la wax ci yéen kaay ca beneen wàll ga Macky ak nguuram mbiri premier ministre assemblée nationale l' évidence yéen ne choix de vie ou de mort. cëj esselé est dépassé le président ne dévoile le nom d'aucun ministre <laughs> gars nag fi mu toll nii nelawatuñ de ministre yi ak ñi bëgg a doon premier ministre. dugg dugg dugg xalwa gi bëri ñoom ñëpp ci àll bi. dugg xalwa xalwa <laughs> sëriñ si seen seen affaire nar a baax kenn toogatut ndax lan bëgg a nekk ministre wala nga bëgg a nekk premier ministre ah doy war la dépêche républicaine assemblée nationale après Thierno Alassane Sall Pape Djibril Fall reste dans l'opposition Bougane Gueye Dany moo nekkaat ci xëtu yéenekaay bi le mandat nee na bi ñu paree moom Ngor si Gueye Déthié Fall Lamine Thiam et Khalifa Sall moo félicité Ousmane Sonko peut-être qu'il n'avait pas le temps <laughs> mais Bougane yow loo joteeg Sonko dégg nga li mu wax nee na bi ñu paree ci campagne bi ñii doo ko félicité Sonko nag xëy na Bougane jàpp na ne xëy na daal mu doon jot <laughs> loolu mooy ñëpp félicité nañ ma ba mu des Sonko. Hmm? ak sa sañse bu rafet bii sa karawaat bu rafet bi caay ngóor si géy kii war nañ ko fee dalal de àndamu ah, doo invité bugaan incha allah ñëpp dañ ñëw <laughs> demal ne ni ka eew eh, yéen est-ce que yéen a ngi dégg mbay ga dem yéen a ngi dégg mbay anta le témoin yéen a dinaa ko hmm? invité de incha allah contrôleur inspecteur des impôts et domaines sur le pied de guerre. Mame Boye Diao reprend les 4 hectares offerts à offerts au la. oui Badou Sayer gën a fee ci kaw. au nord. syndicat des agents d'impôts Mame Boye bi du mu jotee gars yi. ubbi lii rek kaay bi mu ngi ci. da leen joxoon 4 hectares après mu. da ko nanguwaat waaw mu nanguwaat ko. lu xew li jënte leen ko seen biir le vrai journal <clears throat> nee un avenir lié à celui de Macky et de l'APR PS AFP LD PIT AJ la fin d'un cycle dafa remarque fii ci ñoom ñii rang ñii ban remarque nga ci def kii Aminata Mbengue Ndiaye la. Mhm. Moustapha Niass Abdoulaye Bathily Ibrahima Sène mhm. Landing Savané Mamadou Diop Decroix ñii ñëpp ay paa lañ renouvellement de la classe politique bi mhm. day yóbbu ñuy retraite wuy eh, liñ ci wax mooy yow PS l'ombre <laughs> de lui-même Aminata mii moo fa ne yor ko di góorgóorlu ñoom seen ngóor si kii nu mu tuddati ki àndoon ak Moustapha Niass bi muy yor xeer wi. Serigne Mbaye Thiam Serigne Mbaye Thiam ñoo ko ne. xaaj bi fàq nañu wuti Khalifa Sall. ak Barthélemy Dias. l'AFP après Niass le déluge. Moustapha Niass mii daf naa la nettali anecdote bi bi paa yi dajaloo ne ko waaw gis nañ ne vraiment mag nga dañoo bëggoon nga jox ñu parti bi. pour nga dem noppalu Niass ne leen ay ca bisimilah doxal leen. <laughs> weer lañ ci teg weer waaye <laughs> ñëwaat vraiment gis nañ ne mënoo fee ñàkk. ndax yow parti bi parce que ñas mooy def mooy joxe xaalis bi mooy financé. LD accroupi puis couché. sabarla accroupi puis couché. te yàlla daa jonkoon ba mu yàgg mu jaaxaat faf wuyul bi bi ci topp PIT mu ne une exigence via Facebook. <laughs> mais yow lii ban journal la. Momar Jong la ak ak Ablaye Mbow Ablaye Mbow dama mën a topp kaa mais ñoom it ay toppkatu kaa lañ de. une existence via Facebook. waaw parce que moi j'ai j'ai envie d'aller dama am envie bi reprendre écriture bi ak ak le vrai journal. j'ai envie eh, d'écrire. na mu yow xam naa daga nga topp Ibrahima Sène bi Ibrahima il passe tout son temps à faire des contributions sur internet. Facebook mais père père dimbali nu. mais le vrai journal ñaawal na ko de ñaaw na de. <laughs> te li ma neex ci moom il est très disponible gis nga bu biddee boo tontoo day ñëw tontuwaat maanaam moom day commenté ci boppam <laughs> Ibrahima Sène ndeysaan doomam sama xarit la Maxime. ndeysaan Maxime Sène Maxime Sène. un grand technicien un grand doomam sama xarit la waaw. moo tax ma xaw ko ya père. le frère à Lena. père wàññil tuuti. ak mën a bind ay contribution kilométrique lay def ba pare jël temps nag ku bind ku commenté mu tontu la moo tax yéenekaay bi ne PIT une existence via Facebook <laughs> bi ci topp Asie Landing Savané perdu de vue ah Landing nag kenn gisatu la ci réew mi. Landing mii ah kenn gisatu ci réew mi. Decroix nag moom fu mu ne. kii da daa bëggoon a nangu parti kii ñoom ñaar ñu den nii. tu vois Decroix mi kii yeeg kii daa sos partem bi. léegi du ma li nga bëgg ma wax ci nii du ci wax du wax. non je passe. parce que parce que parce que foofu dafa am histoire parti boobu. moo xoolal moo nekkaat ci yéen kaay bi Decroix kii xaw naa nangu parti jàmbur bi les Échos yéen kaay xoolal rek ville de Dakar mm. le cabinet du maire sans salaire depuis plusieurs mois waaw waaye lii metti na lii metti na de Sagar Diouf secrétaire national chargé des élections AJPADS bu Landing Savané AJPADS ne pas un parti qui fait dans le suivisme ah bon xam naa ne de âge yi moom gone yi léegi de ñuy voté am 18 ans ñu bari xamuñu âge yi ji <laughs> jëf rek <laughs> ànd jëf mooy âge yi ànd jëf PATS mm-hmm. landing ak Decroix xoolal xëccoo bi mën na tulleeg màlle maa moom parti bi moom moo ko damay jiite doo jiite <laughs> demal parce que père Landing sama père la quoi libération yéen xoolal Sénélec deux cent milliards de créances mhm. deux cent milliards yéen a kaay bi ne les producteurs privés indépendants qui vendent l'électricité à la Sénélec on servi une mise en demeure à la société nationale moom ci boppam dañ ko jox mise en demeure pour mu fay mais Sénélec mënut a fay parce que les gros clients consommateurs yu mag yi fay ñu waaw mais tamit lii tamit lii moom lii moom duñ ko lijjanti léegi ñun baadoolo yi ñoo ciy dee de bu xuy kamaj gi commencé waatee yéen bi ne dans l'impossibilité d'emprunter aux banques Sénélec affiche une trésorerie très tendue. wala ñu mujjee fay facture ñi nga xamante ne ñoo yoreel Sénélec. ñoo ñoo war a fay Sénélec Sénélec mën a fay. ñun ñoo koy mujjee fay. dañ ko ci teg tegal ay 1000 francs ki 2000 francs ki 5000 ki 10 000. da ngay kaas rek waaye <laughs> imaam yi créé wuñu foon benn benn kuréel ñoom imaam Sarr. ne duñ fay. fu ñu mujjee imaam yi fu ñu mujj. ana imaam Sarr. ah jar naa laaj de <laughs> imaam yow tamit. dafa dafa xam naa ndeysaan dafa jëm mag. daa transhumé. dafa jëm mag non dafa jëm mag xam nga aussi ja xam nga léegi am na âge booy am pour mun a. xeex ah, quoi ah, pour man daa transhumé sax. non non dafa xam dafa jëm mag rek. <laughs> yéen a kaay bi ne Sénégal affiche une trésorerie très tendue accentuée par la non paiement des grosses factures dues par l'IMAC, AIBD, SOMA et plusieurs structures étatiques déggal wax bi plusieurs structures étatiques maanaam ay kuréel yu bokk ci état bi ñoo fayul ah waaw waaw Pape Demba Bitèye yow mi directeur général Senelec yow moom doo dem ci sa kilifa Macky Sall la wax ak moom mu wax ak gaam yi ñu fay ah ah yow lii moom ah? doy na waar de Me Abdoulaye Wade lii quotidien grande famille libérale Wade snob Macky loolu la Pape Djibril Fall reste dans l'opposition mais libre réew mi quotidien assemblée nationale Pape Djibril Fall l'équilibriste loolu la ko yéene bi tuddee ni pour ni contre le rapport de force Benno Yewwi Wallu reste intact demal les non di gis nga ko de redéploiement des activités de l'hôpital Aristide Le Dantec yéen kaay bi ne am na lu ñu ci waxul. am na lees waxul source A moo wax loolu. Mhm. nee na le personnel administratif de Le Dantec ne peut pas être affecté vers d'autres structures sanitaires qui ont déjà leur leur bureaucrate <laughs> et cetera et cetera ubbil nga fa. Mhm. Sud Quotidien inflation. Hmm? Bérézina du Benno. regain de l'opposition nouveau gouvernement yéenekaay bi ne ces défis de fin de mandat maanaam guy yu rëy yi samp ci kanamu Macky Sall gi nga xam ne day jeexal mandat loolu yéenekaay bi Sud Quotidien xëy fësal jihadistes yi ca Mali mm-hmm. ko charge Paris le commandant de la force Barkhane dénonce des accusations insultantes da nga na yabaate hmm? mm-hmm. tribune xoolal PS AFP réew mi bés du ñàkk PSD PIT Macky encerclé par des alliés encombrants li jënti ko rek walaay Sall li jënti ko rek Bougane wax na ci yéenekaay bi ma nga fa Vox Populi Wade proclame le PDS première force de l'opposition parlementaire wax nañ ko fi léegi c'est normal <laughs> assemblée moo ëpp ay député waaw moom ñëwul gis naa fi dafa mel ne kii de kii ko mu ah El Hadj Malick Gakou candidature à la présidentielle ah waaw lii moom teelut a nee na je pour tous les plans pour 2024 moom Gakou loolu wax ci yéen kaay mhm. Guy Marius Sagna nee na wooye leen ko mbindaan appelez mois mbindaan je suis mbindaan waaw lii mooy gàddu naa seen problème te incha allah danaa ko danaa ci wax dox ci ci ko mu ci football kat yi nabu koor Ismaïla Ismaïla Sarr loo ko dal mm-hmm. ah équipe am da ko mënta bàyyi Crystal Palace dañ ko soxla mm-hmm. fay nañu 16 milliards lii la fay pour jël 16 milliards la fay waa Watford bañ Watford moom ah. bëggul bëggul mu dem waaw football moom bari na xaalis di nee naa la fi ne nii di examen agent de jour bi dama koy def waaw waaw kañ la waaw ma date exacte mais je vais faire ça dëgg moo gën yi toog fii. mais saa waay 16 milliards toog xulil toog fii di laaj ay wave. ah non loolu mbir la. ca wave ba la ca wave ba la. yow moom xam naa ne bis boo boo nekkee agent de joueur boo mën teg dem defi agent de joueur ak gën. xeex boobu am na xaalis de. noobul na gaa mais xeex boobu. am na xaalis ah. am na xaalis de lii. moom kay bu ko nekk may tekki moom. ah waaw waaw da ngay tekki par force. dix saa yi dix pour cent la. 10 pour cent du du montant global. 10 pour cent eh eh eh noonu. xonq nopp bii ku mu. moo tax Bakary Cissé xulil bu bu bu Sadio Mané Bakary maa ngi koy Bakary maa ngi lay woo ma wax ko ci antenne bi nga dégg ku la xamal ko la Bakary maa ngi lay woo téléphone mënu ma la jot. Bakary mënu la jot fenn woo naa la ba sonn ma wax ko sa mbokk yi yeggee ko ko quoi. Mm-hmm. Bakary record. <laughs> wax nga ko ci suuf kenn faale wu la. journal record Bakary. Ah, mais lu tax mënoo ko jot. ba xam nga Bakary ba tal Bakary mu ngi ak Sadio fi mais Bakary maa ngi lay woo sa WhatsApp maa ngi lay woo direct mënu ma la jot <laughs> nga jot ko nii quoi comme ça nga def machine. réew mi sport contrat Marseille Jambar nee na jeex na club de fin. de sortie révélation. Hmm? waaw mais affaire Benjamin Mendy bi tamit. Mhm. doy na waar de. yéeme na kay. Hmm? mercato Koyaté Gana Boulaye yéenekaay bi Stades ne ça s'accélère pour les Lions mm-hmm. ah suñu gaynde yaa ngi nii tàggat yaram da xam naa ne nabu koor moom surtout football. léegi dama cee màndu. kii de bu doon may joxe équipe nationale. léegi dama cee moom laay toftal ci Aliou Cissé bi. après mbay Gueye profond malaise à Fass waa ñii bu ñu tas écurie Fass nag ñu ko tas waay ah ñu tas écurie Fass yéen kaay bi ne après Mbaye Gueye profond malaise à Fass volonté de remettre le CREI en des mains plus expertes yéen bi ne patrimoine de Mbaye Gueye Abbas Ndoye sur fauteuil éjectable point d'interrogation mbaa duñ ko dàq ah Fass va revenir à l'orthodoxie loolu la wax. kii moom jeexal na waa Fass moom Balla Gaye jeexal na leen. Mbadou mooy seen bët noonu. jee xoolal Tafa Gueye. Gris Bordeaux deux fois Papa Sow Mbaye Diouf sunu lamb ne Balla Gaye a rasé Fass sa waa ji Balla Gaye wala yow Gris Bordeaux mooy sa bët. Mm, mm. ah d'accord ah damay laaj. Balla Gaye deux a rasé Fass defe naa jeex na de. mat na doyaluñu. ca wéef ba la ñu dem. Socé. Hmm? Sénélec. waaw. je pense que demain certainement incha allah. Hmm. du ñàkk ñu ñu am leen wala ñenn si ñoom parce que kaawu hmm. Sénélec bi dafa grave. ah non il faut ñu wax. <laughs> dafa grave. il ñu wax dafa dafa dafa yéeme. Euh, jafe-jafe la compliqué na Senelec nag moom bu amee problème moom boobu mooy wàcc bi gën a gaaw. non oh, loolu yii boobu moom day daaneel nguur ci charge. les émeutes de l' électricité. yaa ngi koy fàttali 2011 2011 boobu moom. <laughs> les émeutes de l' électricité boobu moom tàngaay bi yeeg <laughs> yii. et puis et puis et puis société yi amal Senelec courant la duñu fay. mais ba pare ay société étatique lañ looloo ma ci jaaxal mais mais mais dañoo amul xaalis wala lan la lu xew. ah TER de xanaa TER bi de am nañ xaalis. ah Mansour Faye ko wax de. AIBD dégg nga li waa ji wax bërki démb nee nañ seen bor yëpp fay nañ ko léegi aéroport bi. ñoo ko waaw ndekete ndekete dañoo amal ko <laughs> ndekete yéen a ngi amal Senelec. AIBD kay a mën a fay war a mën a fay courant. ndekete da ngeen amal Senelec courant. non mais quand même. <laughs> c' est extrêmement grave. c' est très grave ah. mais nag naa la wax benn dégg nañu euh, ADD mu daal di euh, démentir. non loolu la mën a wax nee na la waaw loolu a wax. mais mais mais bëri na lu lu lu service entreprise publique yi. Mhm. di subir RTS tey boo leen laajoon publicité bu bëri bu état bi di jàllale est-ce que ñii Sénélec entreprise yu bëri dette intérieur beeg maanaam nguuru Sénégal moom da ngay wax ak nit sax mu ne la non bu dee état bi la non. dañuy amelante quoi non dañ naan du fay. dañuy amelante dañ waaw dañ fay day day kii mooy loolu. Mhm. mais c'est la façon de gérer d'administrer. c'est mhm. compliqué et ça fatigue tout fay leen Sénélec xaalisam. non dañoo war a fay mu liggéey. ndeysaan sama xarit bi ma ma sa maa ngi lay maa ngi lay masaw ma sa lii tooy ci ñun lay jóge lii tooy waxuma la lii tooy ci ñun la ñun nii noo ko a fay mhm. moo tax la toog nii dikki mhm. dañuy jóg wala bu nu jógul nu xool nuy mhm. te mënuñu koo séddoo dañu war a fay de Sénélec war fi ak liñ fi wax yëpp Sénélec jàmbaar ba tollu fenn ñu ñëwaat nii réew mi lii ah, mu ngi ñaaw de wala keesu nguur gi daa amatul xaalis mu ngi ñaaw ñoom dañoo jotul seen ay budget wala la. parce que le président Sall n'est pas trop focus sur les choses il est trop politique et politicien le samedi gisee waa Benno Bokk Yaakaar président Sall depuis 2012 qu'il est là il passe son temps à des activités de politique. et de politique politicienne man de man de man de bu doon maay moom. xam nga ça ça use. bu doon maay moom ndaje mi mu war a def samedi ak. ak l'essentiel du ci nekk parce que ni ko wër la. ne naa la groupe boobu. ndekki añ reer ba 4 heures du matin ñu ñëwaat président bi ne ci noonu cercle boobu rek oh dañuy dem ba administration bi ak officiels yi sax ni ñu war a liggéey président duñ ko mën parce que y a un groupuscule ah qui est là ah qui mais qui dandine qui est là xam nga lii urgence la léegi samedi moo war a recevoir ay député au palais non lu toll ni Aristide bu doon maay bu doon maay moom damay damay suspendre loolu xoolal dooguma la yàlla bu yàlla dox entreprise yi fayul yëpp ma la yàlla bu yàlla c'est kii focus ci l'essentiel lu toll ni hôpital Aristide Le Dantec du am coow lu mel nii nga ne tekk Mbappé sax mbappe bu dugalee bii nga tweet Mbappé buy dugal bii ngay tweet félicité est-ce que du moo ko ordonné bu dee ñun l'essentiel on n'y est pas. may laaj de et et samedi bi ngay recevoir waa Benno Bokk Yaakaar après on me dira non le président a son calendrier il a ses activités nangam nangam c'est organisé. mais y a des priorités mais <laughs> y a des justement lu toll ni. lii priorité hôpital li xew ci hôpital Dantec. bu ñu ma nee woon médecin yëpp universitaires yeeg borom xam-xam yi samedi président daf leen woo palais mais ñu ñu ñu am tuuti kii sax. waaw xam ne foofu solution dana fa jógee. tuuti ba pare convoqué ces directeurs étatique qui refuse de payer. dañoo war a fay Sénélec dañ ko amel deux cent milliards ah, fayaguñ ko fay nañ ko non leerul état bi ci saa si nguur ñu ne président Macky Sall woote na ñoo urgente au palais sur le cas yooyu la quoi foofu la ñuy sentir dayoo waaye nguur boo xam taloo dara bloqué ay salaire u maire yi Dakar xeex politique. loolu ruube tëj Abdou Karim Gueye mars ñu dem jàpp ko dóor ci yooyu bëgg réew mi dox du émerger hmm. immersion lañu ne génn nu sax bay bay jóg. il faut construire ce pays-là avec de l'intelligence du tact et puis xool ba rafet njiit waa yaatu président yàlla la yàlla roof baax baax nga gën yaatu ci li nga baax déjà li nga jot a baax yàlla na ko yàlla yokk nga gën a baax balaa muy trop tard <laughs> balaa muy trop ay weer nga ci des de affaire mu rafet ko li des bareetul ay weer a ci des laa ilaaha illallaah gis nga Macky war naa fàttaliku benn image bu garaaw mm-hmm. gis nga gis nga bi mu bi mu gañee Ablaye Wade mm-hmm. ba ñëw ci palais bi mhm. di leen nuyu. Mhm. Oh, non ca oh oh pop gis nga bi mu ñëwee ba ci Karim Wade ah. moo tax nguur daal yàlla koy joxe. Mhm. affaire bi triste triste. moo tax yooyu njiitu réew bu ko dul sóoraale te xam ne tey yaa ngi dugg mais suba da ngay génn ki la war a remplacer ñëw ak yaa nga dajale sa njaboot gépp nuyu la. gars yi toog ci biti yéen ñaar ngeen dugg ci bureau bi yéen ñaar képp wax li ngeen di wax génn mu accompagner la ba ci perron bi ubbi la oto bi nga dugg mu tàllal loxo ne la au image boobu njiitu réew bu ko dul xaar doo nit. et puis et puis te day am parce que moom noonu la def Abdoulaye Wade. et puis Socé. c'était très cérémonie boobu ngaa la. Socé sur le cas de de la Sénélec. oui li ma Moussa Diaw di signaler. la centrale flottante des des des Turcs mm-hmm. nous coûte treize milliards par mois. mais loolu mais mais mi ngi ci yéen kaay bi. mais mais mais. mi ngi mais mais mais mais. naa def. daggal waay daggal waay. ma dagg mburu ndékki. waaw waaw moo gën a rafet. Ah, baal ma dagg mburu. daggal waay moo gën a rafet. waaw. moo gën a rafet gaay. suba ak jàmm. suba est dinaa ñëw man nag wuy ma. incha allah. kon nii damaa damaa kii de. gis nga yow boo ko bëggee ñaawal rek mu ñaaw. non non non alaaji day ñëw suba.